trois mbokk yi ñoo ngi fi Ndayane seet si fi Pape Sarr bi mu jógee arène nationale moom moom képp ñëpp xam na ne bu jógee arène nationale rek day jubal si ndaayaan reer reer bu baax tey nag moo ñu dalal man ak sama caméraman bi mu jëndal ñu ñaari hamburger yu baax a baax a baax maa lay ziar baax di la waaw dellu ziar mu daan te maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sa caméraman bi di rafetlu tamit sa liggéey ak sa teewaay bi fii xam nga di nuyu tey waa Ndaayaan ñi ma fi fekk ñëpp di fi nuyu commencé ko ci As Ndaayaan abib Mara badu njoon Sora Malick xam nga di nuyu Papis Dieng du sama rakk di ko bu baax. di nuyu aussi Ousmane Cissé tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Laay Laay Laay borom États-Unis maa ngi koy nuyu di nuyu abu Sall Mama Labaat ñoom ñëpp ñoom ñu ngi Memphis maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa Paris yëpp ñoom Paa Idi waa 18e yëpp maa ngi leen di nuyu. di nuyu Ibu bu Belgique maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax maa ngi koy nuyu Ibu moo ko soxnaam maa ngi nuyu tamit waa Suède su ma ne curku curku rek moom dina xam boppam maa ngi koy nuyu bu baax a baax baax a baax moo ko soxnaam ak bépp doomu Gambien. macha allah tey noo gisee woon làmb ji arène national waaw taaru na jekk na di si féliciter suma frère Fallou Ndiaye wax dëgg yàlla di ko di ko wan ni réussir na fi mu teg tànkam noonu la di ko ñaanal xam nga foofu la daal di ko ñaanal jàmm parce que tey wax dëgg yàlla sécurité bi mot na lamp yi tàkk na combat yi egg yëpp egg nañu si jàmm. wax dëgg yàlla kenn gisu fa violence kenn gisu fa ñu damm 16 kenn gisu fa dara kon ñun dañ koy féliciter mooy wan ni moom xam nga léegi moom professionnel la si liggéey bi daal maa ngi koy ñaanal xam nga di euh, di féliciter nag suma rak spa bi soq bu ndaw maa ngi koy féliciter di encourager xam nga petit loo bu baax parce que papam suma xarit la ñun ñoo dëkkandoo woon fii. père Ibou Diouf père Ibou Diouf. Ibou Diouf xamee ma ko ñun ñoo nekkandoo woon suma dibiteri bi féliciter Elisabeth Diouf mu nekk buntu Gandour. bi muy nekk fii tamit ñetti mbaar di jaay këriñ fekk naa ko fi fii lañu fii la ñu dëkk ñu ñëpp ñoo dëkk comprendre nga. xam nga mooy woon tey suñu ñaari doom rek ñoo doon bëree tey xam nga xëy na tey ndam li suñu borom da ko jox kii ñu wax ko mu defaraat defaruwaat parce que sampion la. macha allah di félicité tamit euh, kii euh, Mor Kankang di encouragé. Alioune Seye euh, di félicité tamit Dame Sène di encouragé tamit Tonnerre. mais damay taxaw wak yow ci combat Dame seen ak Tonnerre. bëre ba mi temps hmm. stade bi yëpp jóg xeetu bëre. feeñ na fi tey Tonnerre retour am bi est-ce la. non bett na ma trop man dama ne damay wax con damay conseil tey promoteurs yi ñuy boole ñuy tool ñu xam nga ay xale. yaa ngi may dégg est parce que tey Tonnerre ak Dame Sène bii lii du làmb. Dame Sène du làmb Dame Sène am na ñeneen ñu mu waroon a bëreel yu dul Tonnerre bii du dëgg. Mm-hmm. waaw am na combat yu sap sap yu mu waroon a bëree mais comprendre nga est xam nga. waaw seen gàkku de. loolu mooy làmb seen gàmmu gay waaw ak kii nu mu tudd sax càndum daam càndum de càndum de ñooñu ñooy ay ñooñu ñooy ay moromam ñooñu ñooy ay moromam ñu bëre moom daa daanu xanaa njaga caam waaw ñooñu la mais tey boo buggee indi tonnerre nga xamante ne bëri naa ak Moussa xam nga bëri naa ak Mamadou Diouf Sogaas boo bëri ak Elton waaw waaw voilà xam ak tey nu ngi ko teniree nii ba mi temps. mais tonnerre ndaanaan la de. waaw tonnerre ndaanaan non ñun am meruñu. amuñu lu luñ koy wax mooy na dem defaru waat xam ne ay supporteurs am tey kii bëri na wanewul ñàkk jom ba daanu. xam nga ma koy encouragé di félicité tamit daam seen bu baax. Mm. macha allah am na solo làmb ji neex na ambiance bi bëri na tey soq ñëw per baaxum ñëw yéen ñëpp ngeen ñëw topp ci ginnaaw soq bu ndaw lan la lan moo xew. non si day am lu xew parce tey li ñuy li ñuy wax fii dër bi la moom la ñuy bañ ñun dër bi boobu ñuy wax ñun loolu la ñuy bañ parce que tey am na ñu bëri ñu ngi ñu ngi dugg ci ay làmb man li ma leen di conseil <laughs> mooy ñu moytu balaa liy dal Selbé Ndom am nga Selbé dafa mën Selbé Ndom daa mën de day daan gis làmb yëpp la daan gis mais dafay dem dañ koy dëpp da ngay dem koo xam ne yoonam nekkul ci làmb mu taxaw ci kaw tirbine bi yor kurisam di la loo def mu contre la loolu la waaw ñun tamit ñu ngi bëgg a yàgg ci làmb moo tax anta man 71 laa juddu ak léegi fanweeri juróom fukki at la waaw maa ngi bëgg yàgg ci làmb waaw 1971 laa juddu mm-hmm. le 31 juillet 71 mm-hmm. ku nekk gunge naa la ci làmb dégg nga façon gàllankoor xool sax léegi nga mën a ñaan. laay wallaay tallaay <laughs> waay yow non ñun Paa Fallaay jàngal nañu lépp parce que sama dibiteri la daan toog bi mu ko tuddee dibiteri Paa Fallaay mm. xam nañu lépp xam nañu tegtalu làmb ñun fu dee la ñuy dugg billaay wallaay tallaay may. xam nga di nuyu waale suma xarit saa Touba tamit maa ngi koy nuyu bu baax tamit xam nga. tey moom daa daanu moom. waaw tey moom daanu na soo xoolee sax am na image yi gars yi di dugal. ñu ñu dugal fi mu koy encouragé parce que dañoo dugal benn waay ji ko doon sécurité. fekk xamul lu nekk sama sama diggante ak saa Touba du làmb dama am dama am ay nit yoo xamante ne xaw ma woon ni sax saa Touba day naanal Modou ma leen di booleeg saa Touba waa jooju di ko sécurité. xamul lan laay wax mu ñëw taxaw ne daf may engagé man waa jooju na barki Seydina Mohamed Mourou Anta bu ma bu ma ko bu nekkoon ñoo bokk ndey ak baay mu toll noonu. non sécurité lay def nu mu toll noonu toll ni bâtiment di garder nit suñu bokkoon ndey ak baay te bëri jugul dam koy rendi parce que munoo toll noonu ba pare ne da ngay garder ay nit nañu dem liggéey ji wala dem bëri ji wuti licence parce que yow munoo toll noonu toll ni bâtiment nga ne dangay ngay garder te millions yi nekk ci làmb ji. man suñu bokkoon ndey ak baay kooku doon garder Sa Touba ni mu toll noonu mu yeewoo suñu kër kan la xaw ma mbër la wala du mbër ce que bëgg naa bëre dama ne la su tol dina bëre ci nii mbaa ci ne le suñu bokkoon ndey ak baay nanguwul bëri dama koy bàyyi ba mu tëdd ma rendi ko parce que damay xam ne kii mu ngi mu ngi xañ ay famem alal gu bëri parce que mu mënoo toll noonu naan da ngay garder nit dangan waa ji wa waaw wax na wax naa ko lu ma neex parce que man yow xamoo lu ma sekk saatu Sa Touba dépassé wu ma taxaw naa foofu euh, booy soq bi di romb ma baare nit ñi pour mun toog si jàmm ñibbi si jàmm du dëgg am na droit nag ñëw ci làmb ji comprendre nga que ñëw ñaanal rakam kii bokkul sax ak mbër yi mu doon indi kii rakam la ñoo bokkoon sax fanaan xam nga kenn la woon ci moom mais tamit tey suñu borom ñun la àndal yaa ngi may dégg sax loolu laay wax tey ñeneen ñooñu doon di def sécurité yooyu nañu moytu yooyu man du ma ko ñuy xoqatal ci stade bi de. déedéet <laughs> man du ma du ma du ma du ma ñooñ dama koy dama koy wax rek. Hmm. voilà dama koy wax parce que ñëpp teg nañu seen teg nañ ci seen bët mu tooñ ma maa ngi ñëw di di calmer Sa Touba yaa ngi may de gis que ak boo yeeg yooyu noonu yow xamoo buggu nit ñi gis la wala Sa Touba yokkal la lim lay jox. yaa ngi may dëgg man bu ma woowoon sax ma yëkkati benn vingt mille jox ko comme li ma def caat sekk waaw. <laughs> macha allah am na solo kooku mooy Pape Sarr mais nag rent DK gëj nañ leen a gis. depuis le 27 février ba tey Mbaye Gouy Gui ak Zarko Pokola Balde ak xale ba Papa Kane numéro 2 Yankaw ak Tidiane Faye numéro 2 ngeen tëgg làmb yu neex amateur yëpp di ko waxtaane fan ngeen toll waa tey ñu ngi ci parce que euh, démb ba barki démb rek maa ngi nuyu waale Alain ak Jimbo ak jogay yow it di la gërëm bu baax parce que da nga see def jéego bu am solo ci combat boobu ñu ngi démarché waa ñu ngi démarché nag ay combat mhm. Marley moom féete na boor Marley benn waaw eh. Marley moom féete na boor Ibrahima jóob tey dafa demoon Màkka. waaw moom la ñuy xaar. Mhm. moom laa doon xaar pour waxtaan ak moom. mais ñibbisi na ñibbisi na. Mhm. bu soobee yàlla dinaa ko dox parce que dafa am benn mbër boo xam ne si si Ibrahima Diop la nekk amagul adversaire. vraiment wax nga la neexee nga wax bu la neexee nga bàyyi. ah mbër ma de jàmm gën la dëkk. waaw Mama Lamine la Mama Lamine la. Mama Lamine Marley waaw. Hmm. si Mama Lamine daal xam naa ni suma waay la. Hmm. te xam naa ni bu may pour promoteur yi ci man lay ñëw te sama nit la suma xarit la. Hmm. waaw Marley tamit suma waay la suma lépp tënk nañu ak Marley ba mu dee. loolu moo ci des. xam nga bëgg nañu tamit Pokola maam Mor bu Faas. Eh, waaw bés la de. saa boggal rakku góor a soog bi. Talfa Talfa saa boggal bëgg nañ ko. xanaa da ngeen a bëgg a tëj arène nationale nañu Ramdan Senior moom suñu poulain la suñu lépp la daan Senior mm. tey ñu moom moom moom moom ak staffam sax ñun ñoo koy topp ñun ñoo koy ñun ñoo ko yoreel waaw parce que wax dëgg yàlla jàmbaar la Ramdan ñëpp xam nañ buy boo ko boo ko engagé duubul bi li nga ko fay duubul duubul bi lay jënd ci ay ticket combat pare ngeen pour taxawal ko lépp pare nañu lépp Pakola Baldeek ñoom ñëpp ñoom Pakola Baldeek euh, nu mu tuddati waaw Talfa bébé bébé guy gi Papa Kane numéro 2. bébé guy gi Papa Kane waaw Papa Kane numéro boobu tamit ñu ngi si. comprendre nga combat bu neex la parce que bébé guy gi bëgg na Papa Kane numéro 2 bëgg na. jeex na bi komba bu neex a ngi noonu. yaa ngi ma dégg sa càndum tamit ñu ngi koy càndum 2. ñu ngi koy utal adversaire moom it. Mhm. man maa ngi koy utal adversaire xam nga bi Njaga Caam daan. Mhm. moom si ñun la bokk muy ñoom Eumeu Sène Junior Mbaye Guy gi ñoom ñëpp waaw lépp macha allah yooyu combat ngeen nar koo taxawal macha allah yàlla na taxaw ak jàmm Mama Lamine ni mu Mama Lamine 2 bu jàmm gën ak xale ba Marley. aussi tamit nga wax beneen combat bu garaw Mame Mor bu Fass ak Pokola Balde nga waxaat beneen combat Talfa ak saa bokkal yu neex macha allah lan ngay wax amateur yi ak lan ngay tàggoo. waaw li may tàggoo mooy di baalu àq ñëpp di la nuyu tamit di baalu àq sénégalais yëpp comprendre nga xam di. di ñaan yàlla na fi jàmm yàgg di wax tamit waa CNG tamit comprendre nga nañu veillé bu baax ci courant bi yaa ngi may dégg sax surtout courant bi tamit bu coupé xam nga ay ay kilifa ñooy nekk ci stade bi comme tey ni mu demee nii nag combat yëpp mel noonu continuer noonu comprendre nga est-ce que di wax tey képp koo xamante ne tey ma képp ku nekk Pikine rek maa ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm comprendre nga boo am combat tamit ma xam nga xam nga ma leen di ñaanal seen combat yi ñu jëm ñu am ci ndam bu sedd guy comprendre nga mooy nuyu ñëpp waaw di nuyu Eumeu Sène di nuyu deux cent pour cent bi nag di leen félicité waat waa deux cent pour cent Pikine yëpp di nuyu Diaz bu AS Pikine ndooy bu booy Niang maa ngi koy bu baax ñoom Mortala gars yi nekk ci ginnaaw yëpp nekk Pikine xëy na man la ñu gis rek may wax mm. mais am na ay ku mel ni Diaz bu AS Pikine mu ngi Italie moom Mortala duñu ngaaka Mortala bu ñu ngaaka moom it moom doomu Pikine la ñoom Ndoye Ndoye bu Boy Niang ñoom ñëpp Abdou Diouf double nationalité bi ñoom ñëpp wax dëgg bu ma limee damay juum xam nga di nuyu père de Gaulle xam nga Lanjang Ibou Sy staffu Taay si nga yëpp staffu Fallaye Balde staffu Boy Niang staffu Sokh Bac Seras xam nga ak mag ji xam nga Aliou Ba maa ngi koy nuyu bu baax di tëjee nag suma rakk Aliou Seras maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla defal ko jàmm di nuyu aussi jërëjëf mu jërëjëf. macha allah mi ngi noonu Pape saar la yaakaar naa ne bu Pikine doon garab ren baa ngi nii toog yaakaar naa ne nag man mën naa xaritoo ku nekk nag waaye bu demee ba ngeen di bëreeg mbëru pikin day jël xarit ga teg ko fële sol mbubu dereetu Pikine bi macha allah muy koo xamante bi nii naw nañ ko torop parce que lii la ñu gëm gis nga nit boo dëkkee ci ab dëkk da ngay gëm dëkk bi nga dëkk. gëm ko bu baax a baax xam ne yow fii mooy sa fierté te moom noonu la mel gis nga ko xaritu sookaana la ñoom Batika ñoom saa Touba mais teewul bu làmb taxawee day jël affaire bi def ko nag ji koy sportif mais ba pare nekk ci fair play même mu daan la nga daan ko day ànd yow ci fair play loolu ñu rafetlu ko trop trop surtout way wi nga defan ci combat tafaatin ak Boy Niang ba tey kenn dootu ko fàtte da ngeen di dem ba Issa Santé tiset nga sol tisetu Tafatine moom supporters yi Tafatine yi sol tisetu Boy Niang ngeen wax ak. supporters yi wut ay jus jox leen ñu naan wut ay ndox wut leneen ak leneen ñu ngi la ciy félicité bu baax a baax. waaw jaajëf jaajëf moo daan kontaan si yow bu baax a baax a baax di nuyu di ñaanalaat seen sit bi yàlla na ko suñu boroom def tele bu mag a mag parce que tey xam nga am na ñu bëri ñoo xamante ne tey ñu ngi tey ci Europe bi waxuma fii ci Europe bi ñu bëri dañ maa laaj seen numéro parce que tamit sa liggéey fi nga ko teg daal noonu la ñu bëri ñoom Ibou ak euh, Laay Njaay ñoom ñëpp dañ lay seetaan chaque jour ak suma tubaab bi curku curku buggul ma wax ko tubaab bi curku curku la tudd waaw mook soxnaam ak doomam ñoom ñëpp ñu ngi ba suwet waaw ku may taxawu ku may jàppale la billaahi wallaahi ku may jàppale la di nuyu suma doom nag Cheikh Fall moom laay tëjee jërëjëf mu rànd macha allah di leen jox di daje ba beneen yoon ci seen làmb TV jërëjëf